rawaa nett na alxaaris ibnu xamaam xaaris doomu xamaam qaala wax na naza dégg nga xëcc na man wala naza xoona biyee ci man ilaa xalabin jëm xalab cheiqun nammeel goo xam ne xalaba not na ma wa talabun ak càkkuteef goo xam ne yàlla xoo cey moom min talabin ci càkkuteef loolu pour yéemu la càkkuteef gu màgg moo ma xëcc ma xalab wala cofeel goo xam ni tax na mënatuma muñ moo ma xoj moo ma xëcc yóbbu ma xarab wa kuntu ma idin kerek bis boobu xafifal xaas yi di aji oyof gannaaw oyof gannaaw mooy koo xam ne amul alal jum gàddu amul doom juñ jum gàddu kooku gannaawam diisut xasiisan nafaas yi di aji gaaw ak woy maanaam lu may dugg rek damay dem rek ci sens yi dem defi ko amul leen lu may tardé faaxastu ma jël wax bu bata seyri wàccaayu tukki ba hmm. dégg nga wa xafaftu ma gaaw ileha nax waa jëm ci moom xoofoo hmm. xat tayri comme gaaw ak picc walam azal dañu ma mus xalaltu ba ma wàccee rubuwa ay pakkam hmm. maanaam ay këram wartaxtu ma sàmm rabia ak lollem ma sàmm foofu ci waxtu lolli ufaani di jeexal الأيام فنية في ما خم يشفي دنا سافرة الغرامة جفال بون فدمي دال خيولو تي خيولو ميا تي جمونا بلولي لو فنك كوان موي لب لو بغ رك فخنا با أم تي رمونيخ ويروي موي ناندل الأوامة ماريا فن يوي دال لب لو مجي سوب دفنا كوفا لو مجي مارون ما لو مجي بغونيت فخنا بامكو نعم. إلا أقصر بام قتلو القلب قلب عن ولوعه تقير مبا نت سو اوتي دار بامكو دور تقيرة بباخ نعم. اقصر نك موي بانكو فك مي ام كاتن من نكو ري بفر بايكو اما قصر عنه موي منكو دينغا دينغا نانا نانا دمنا با قلبي غاتن لو تي خيرم نعم. وستاره mu naaw xuraabal bay ba baaxaañ baa moom fasantikon la baa da waqon yi mu tàbbee hmm. maanaam daal mujj na jógee ci dëkk boobu hmm. dem na ci dëkk boobu hmm. fanam yëpp la mu ko jeexal mooy lu mu bëgg fexe ba am ko lu mu sopp fexe na ba am ko bu doon nga ne mandi dem ba soppatu dëkk boobu mujj tàqali moom mu ne faaxaraani mu xiirloo albaalu xol alxilwu bi aji wéet ci njàqare wal maraxu ak sigir léegi mooy kontaan ga alxulu gi aji neex benn aqsida si ma jublu ximsa dëkk bu ñuy wax ximsa ximsa dëkk la moom it ci côté Saam foofu dégg li astaafa ngir ma newetu bi buqaatiha ci pàkkam ba wa asburam ma loow maanaam ma gëstu raqaata ahli ruqaatiha dofak ñooñ pàkk boobu ruqaatu pàkk la rek waa ximsa dañoo wax ne dañoo dof mm-hmm. ba bu ñuy misaal nit ku dof la naan ximsi yun ka jug ximsi la mm-hmm. maanaam ku dof mm-hmm. léegi mu ne moom ba mu jugee ci dëkk boobu mu njëkk tudd muy xalab faj fa aajom yëpp ah ndaw li mu nekkee woon rek ak xolam bi nga xam ne amul benn ajo tax na mooy naa dem ximsa noor fa pour xool waa dëkk ba nuñ dofee dof gi daal moo ko fa tax a dem pour xool dof gi faasramtuma gaaw ilayha jëm ci ximsa isra an najmi comme hmm. gaaw ak biddiw hmm. idan xadda bu fàqee li raj mi ngir jam hmm. bu daanoo ngir jam xam nga day gaaw mu ne noonu laa gaawee fay na xayamtu ba ma xayma bi rusumiha ci ay jeexitam dégg nga maanaam ci dëkk wa wajattu ma wa wajattu ma xeñtu rawxa nasimiha xetu ngelawam lu nooy la maanaam bu ngelaw lu nooy la upp ma mm. ma sax ca dëkk ba rusum mm. mooy jeexitu kër waaye sax naa ci dëkk ba la bëgg mm. lama xaaj ci la gendeeku maanaam ci la gis tar fii sama bët cheikhan mag moo xam ne ni xad aqbala jublu na xariiruhu mm-hmm. mm-hmm. jikkoom ju bon ja mm-hmm. wa adbara dëddu na xariiruhu jikkoom ju baax ja maanaam dana ba màggat te màggat bu màggatee dafay naqat deret moo tax mu ne jikko ju bon ja jublu si na jikko ju baax ja wane mm-hmm. gannaaw mm-hmm. kon fekk naa fa mag mu màgg daal mm-hmm. waaye ndoo nekk na fu mu maasatu si biyaanin fukki xale mag moom mu ngi ànd fukki xale sinwaanun ay xeet wa xeeru sinwaanin ak yu bokkul xeet sinwaan mooy benn tàndarma wala ñetti tàndarma yoo xam ne benn datt la maanaam benn tàndarma moo sax waaye dafa am ñetti cer ku nekk nekk tàndarma boppam hmm. maanaam li mu bëgg wax ñu bokk yaay ak ñoo xam ne hmm. euh, bokkuñ yaay hmm. ñoo fa nekk fata ma daal di topp fii xas di si jublu ko alxiir sa xiir am na xale xam ne ñu ñoo bokk yaay ñeneen ñi bokkuñ ah fata waxtu ma topp fii xas di si jublu mag moomu alxiir sa xiir li ax bura ngir ma nattu bi ci mag moom Odoba wa Ximsa borom xam-xam yi Ximsa yi niñ mel. bëgg a xam rek tax ma dem ci mag ma toog pour bëgg a xam ñoom niñ mel. fa Bacha mu daal di bëgg bi ci man. yi ne waa faytu bu ma ko dikkalee. waxay yaa mu nuyu bi axsana ci lu gën a rafet mi ma xayeetu ci la ma ko nuyu. ba ma ñëwee nag mag mi kontaan lool nuyu ma nuyu bi gën a rafet. fa jalas su ma toog ilee jëm ci moom. jaab lu wa ngir ma nattu. janaanu xixi kottiteefu tuddam. ngir ma xool meññitu waxam nu mel hmm. maanaam janaa mooy meññet hmm. meññitu tuddam maanaam bu waxee nu muy wax ji di mel hmm. loolu laa bëgg a xam waag taniha ngir ma xamit kun xaxum xixi dëgg-dëgg dofam ak tanihu mooy naa jéem a xam dëgg-dëgg mbir mi nag ma bëgg a xam mag mi moom it façon dof la dof xanaa dëkk kay même bu fekkee dëkk bi dañ ko askan dof it du ñëpp dof nag parce que mbir moom du dajale afraad yëpp hmm. fa maa labisa saxul an ashaara ba mu junj na bion sa yét yetam hmm. ba ma demee rek mag mu junj yetam wa hmm. junj yetam kon ilaa kubri usay bi yét yi jëm ci magu xalem ya ki nga xam ne moo mag ci dégg ay xalem usay bi yétu tasgir ala xeyri qiyaasin la dégg وقال مولون لك ان سدد الابيات بيتي انا واتر يقيا ما ييغا خامني امو توم واخذر مويت انتما تي لاغا ياغ غا ييخي دا فا جونيو كي ماك تي ويال ما واي ييغا عرف ييب بعد ييب بن نحو امول تي توم خام نغا لون امو توم واي بول ييخي fa jësaa mu daal di boof jës wata lay sin comme boof ab gaynde waan shada mu sadd way min xëyri lay sin ci dul yéexe ci la boof nag ci omo mi wax béyti yoo xam ne ni yu yéeme la waaye yéexewut ne aadit na nga préparé li xusaadi ka ñeel say way añaane xadda silaahi ñëw kay jaase waaw rit na nga rotal al amila aji yaakaar wirda samaahi rotuwaay ak tabe hmm. rotuwaay tabe hmm. mu ne say noon nanga leen préparé ñëw kay jaase hmm. waaye ki la yaakaar na fexe tabe bu doon ndox mu ñu root la nga wàccee foofu mu naan ci ba mbaane maanaam na nga tabe ci ku la yaakaar bu la nit yaakaar nga xeñ ko wa saayim dogo anteeg allah wa fo fo waslal maha ak jokkoog jongoma yu mel nii yu mel ni nagu njaaxal mhm. waa amil na nga jëfloo al kuuma gërëm yu rëy jéegañ jéegañ ya mhm. gërëm yoo xam seen jéegañ dafa rëy mhm. wa sumra rimaahi ak way sooni xeej ya dégg nga maanaam foo nekk di jokkoog jigéen ñi bàyyi ko xamul njëriñ del rey gërëm yi di berndeel nit ñi doo may wa amalil kuuma Mhm. wala boo na nga ko loo rek mhm. del jëfandikoo xeej yi mhm. xeej nag xam nga kuy ci xareeg yooyu moo ko jëfandikoo nekkal jàmbaar la wasaan na nga jëf li daraaki maxallin ngi jot barab boo xam ne sama yëkkatiku na imaadu ay kenom laa di laa lit dirail miraaxi nekkul ngir mbuboo ab sigirle maanaam sol yére yoo xam ne nii mm-hmm. yére yi la kaf mm-hmm. del jëf mm-hmm. ngir jot ngir xegg ci foo xam ne nii xegg waaye boo xam ni bu doon ay poto la nga ne poto yu kawe la yore waaye nekk di jëf ngir wut bànneex rek ak fo wallahi maa ngi gën ci yàlla ma suududu déet sang asu tilaa di góox sangara wala maraadul hamdi déet càkkuteef ak sant ruudun di jongoma hmm. joo xam ne jànqala radaaxun juréy gannaaw hmm. dégg nga hmm. mu ne sang nekkul ay naan sangara te fa ñu sàkkoo sang it nekkul dem wut jongoma ju gannaaw ga rëy noonu loolu du dara mu ne waaxan kémtaan li xurin ñeel na gor waasin bi aji yaatu sadruhu dënnam waxam mu yitteem maa mooy nga xam ne sarra kontaan loo na ahla salaahi ñu baax mu ne naa góor goo xam ne dënn bu yaatu la borom dënn bu yaatu nag mooy ko mën a muñ mën a jëflante ku ne te yitteem mooy kontaan loo ñu baax yi xém naa ko mawridu hoo rotuwaayam xulwun aji neex la li suaalihi ñeel ñu koy laaj wa maaluhu alalam maa saaluhu fekk la ñu ngi koy laaj mu taaxun luñ la mooy xém naa koo xam ne bu ndox la nga ne ndox mu neex la bu jëflante ak moom ndox la nga ne ndox mu neex la maanaam ku ko laaj rek mu jox la ba nga kontaan saa yuñ ko laajee mu joxe àllam yem naa ko tabee noonu ma asma déggloo wut al amila aji yaakaar rek dan delloo moom moom ñaareel fu mu wax rek dana dana dana xëy dugal al yalwaan ma asma déggloo wut al amila aji yaakaar rek dan delloo maanaam du dàq mukk ko yaakaar wala maatalahu du yàggalanteeg moom maanaam mm-hmm. du nekk di ko dig naan ko tey suba gannaaw suba wala mat lu yéexe fay njëkk mm. wala yéexe jox ku la mm. lu mun soxar la suraaxun bu leer nañi mm-hmm. ko xam ni bu la nit yaakaaree balaa nga koo jox mu xaddi mm-hmm. mais loolu ak soxar la ku soxar rek moo def loolu ñaareel loolu ñu la bëgg a téye te bëgguñ laa jëriñ ñoo koy def dañ lay dig rek suba gannaaw suba gannaaw wata suba pour rek utiliser la jëf loolu lañ bëgg suñ paree mën naa am sax la. Hmm. waaye nit ku la a defal du la dig sax day ñëw rek def mu mat. Hmm. wala ataa topput allah wa fo. Hmm. lamma daa ba fo xootee. wala kasa odut. raaxan teq tenq la ko ñaan ko. kaasa raax kaas sangara. yem naa koo xam ni bu fo xootee. du xuy fo. waaye musut tee kaas sangara. moo tax mu ne tënkam musul xoddu kaasab sàngara mm-hmm. musul xoddee tënkam kaasab sàngara maanaam musul téye kaasab sàngara yéem naa kooku sawwadahu def na ko sang mm-hmm. islaahu defar gam defar sirruhu mbóotam mm-hmm. waratoxu ak jaaj gi muy jaaj ahwaahu ay bànneexam wattima ak seeneen ja mu ne waajooju def sang mooy dafa defar biiram biiram dafa set xamul lu nëbb waaye fexe na ba du topp bànneex mm. du topp la koy séeneen di xoo mm. mu waa jooju loolu mooy di ko defar waxasala amal na almadxa tàgg la woo ñeen ko moo xam-xamam mm-hmm. xam moo tax ñu di ko tàgg maa muhira ceneewuñ mm-hmm. alxuura yu patt ya mm-hmm. way patt ya mu xuura sexaayi comme can ak ñu wér ñi mu ñu patt ñi kat seen ak can ñu wer wér ñi seen ak can maanaam ku fa pat li ci man li nga man ci ku wér doo ko man ci ku pat mhm. dama jënd jur rek mhm. jur gu pat ak gu wér bokkuñ piré mhm. maanaam dafa bëgg wax ne ña xam ak ña xamul duñ benn xam nga xasida bi gisoo ci xarafuñ tom waaye ko yomb de lii mooy adab nag adab da def lu yéeme. da ay nukkat ay sew-sew yu nekk ci biir wax ni ko seetlu day gis ne lii bind ko yombut hmm. xam nga lii ay wax la da nga yaakaar ne yomb na hmm. waaye bind lu mel ni yombut hmm. fa qaala mu wax loo ñeen ko axsanta rafetal nga yaa bu dayru yow asi weer si yaa rasa dayru yow njiital yow njiital eh, jaamukaay yàlla ya dayru mooy labbe bu nekk ci nasaraan bi rek eh, labbe nasaraan bi jaamu buy jaamu yàlla beru wala dayru mooy barab bi muy jaamoo yàlla mu mhm. ne ko yaara asa yow njiital labbe ba mhm. yow njiital armée nuñ koy sax jaamukaay yi labbe yi ñu bi boobu mhm. ban di jaamu seen borom rek su ma xaaral mu ko xam nga léegi baat yi xoromu la leen wooye yaa bu day rek ah parce que dafa nekk ci dëkk bu dof moo tax moom day doo day doo dof la moo tax baat mu wooyee comme waxi dof rek suma ma xaaral ma di til wi ko ci topp al mustabi ka aji niru bi sin wi ci xeetam wa hmm. na ko udnu jegal yaa nuweeratu yow safara si hmm. <laughs> yaa xamara duweera ya weeru géew bi hmm. duweera jamono daara tasxiiru daara la mooy li wër weer wi fa danaa mu jege wala meta baata te yéexut xataa xala ba mu wàcc ci moom maqaadal mu aata comme tooguwaayu jokkalante booy jokkalante ni ni koy jegee noonu la jegee abou فقال مولو نلقم موقل ابنك اجل فنيا الابيات بيتي على عرائس يسيت وان لم يكن نادر نكون سنيم بيتي نفائس دي سير يكون نك نياري لكو ام خل لنكو لان دف نيوم الخل تكون رك باهون وي عرب لي لي دي واتي لو ام الخل من جرت ناقر خير لو لا جفندكو في اني بيتي خمنا سيت لن جيلي صاح بيتي امو سول بوكو ري بوم bayti amul solo dafay suufil suufilu foofu suufi suufil na léegi baax na fa baraa mu yetti alqalama big boobu xatta mu xar ko xam nga big boo koy bind dangay xar su maxtajara mu bokk allahu aliwa ba wa xatta mu bind mu teg aliwa bi ci wetam daal di bind nag bayt yi lu tax mu tuddee leen seet ndax seet dafay bëri ay ay ay affaire yu ñuy def ci yaram beeg yooyu te bayt yi yëpp dañ leen tomb bayit boo xam ne xaalis yooyu mm-hmm. yombut de mm-hmm. gis na benn tomb waaye bii yëpp dañ koo tomb mm-hmm. fatanat nii fitnaal na ma fa jënnat nii mu tooñ ma te jën nii ndaw suñuy wax te jën <laughs> turu jigéen la bi te ci njeeget wala bi te ci jonge mooy di def ay rek yëftal nu dana fitnaal wala dana xeetu ribba tëjënni ci mujj ak tooñ mhm. tëjënni googu mooy isru jinaaya mhm. mu ne ndaw suñuy wax tëjënni mhm. fitnaal na ma tooñ ma di def ay affaire am rek ci gannaaw gannaaw tooñ gi ma tooñ mu ngi def ay affaire am ay affaire am di ma jéem a jaay affaire la saxafat nii muur na sama xol bi jaf ni zabyin ci nagu bëtu kéwél xadiidin mhm. gi aji damm xani mhm. jin gi aji njeeget mhm. ba léegi benn la mooy muy def ay affaire affaire jigéen rek yaqtadi dana waral taxayuda jaf nii nii sëg sama bët bëtam yu rafet yooyu ba mel ni bëtu kéwél mu damm bët yooyu di ci def affaire yoo xam ne ni dana tax mu jàpp sama xol looloo looloo muur sama xol maanaam looloo tax ma bëgg ko mu ne nag loolu tax na ma jooy ba sama nagu ronkañ sama jeex hmm. sama bët yi ngiis mooy sama ronkañ gi jeex na hmm. xam nga yëpp am tom xasiyat hmm. nii muur na ma bi ziina si ñaari taar dégg nga ñaari taar nag mu moom mooy yére bi ak takkaay wala boo xasiyat nii dikkal na ma dikkal na ma bi ziina si ñaari taar fa shafat nii dégg nga mu mu mu mu mu songongloo mhm. bi ziyin ci taar mhm. yëchifu dana feeñ mhm. bay na tasal nii si diggante lemu di lem ay doqa mag def yooyu dégg nga la bëgg wax mu ne ba may dikkal dafa yëre yu rafet ak takkaay yu rafet su ko defee taar gaa xam ne nii moom la feeñal boole kook ni muy def yaram ba من لولو موي لي ما سونال با جيخال ما فشفدني موي مو سونال كو فيبر كو رك فتظنيت ما نجورتو يتبي تتبي ني داف ماي تان بما ديكري مل نونو ما يكان داف ماي تان فتجيني مو فايما بنفس تي واخ يشفي دا سافر سما خول فخيب ني نجورتو لو زني سما نجورت بام نيوي دا ما يكان داف ماي تان واخ من واخ جو خامي دا ما نيه waye sama njortu sooy mu ñëw faale wuñu <coughs> maanaam du wax bi moo yéeme waaye ni ko bindee mu ko ràbbee moo yéeme mm-hmm. eh, téere nag loo ci jàng rek da koy jéem mm-hmm. sabatat saxal na fiyee ci man mm-hmm. riche jéy bin war a xol kon da nga dégg waa wax jéy bu firee ko poos fekk sama xol la ci nam jéy bu firi xol bi tasyini xabiisin ci taaralu aji bon mhm. maanaam ci rambaaju aji bon rek tasdin fii mooy aji soxor ñëw mhm. rambaaj wax ay wax rafetal ko mhm. mooy ndaw si ci la ko bàyyee yabri dana sàkku tachafiya déex nin saafara ak mbañeel mu ne ndaw soosu war na ma ci xolom dégg nga lu tax mu war ma bañ ma hmm. mooy waaju ma bañ ju bon moo dem rambaaji sama digganteeg moom hmm. ba mu gëm la waaji wax te waaji fekk dafa ma maa merewoon rek wala dafa ma soxore hmm. bëgg a yàq sama diggante ndaw si moo tax mu def ndaw si tëb fii ci moytuma ci teet ma fa sanat nii mu delloo ma bi na siijin ci ikkit mooy jooy yus ji dana jàqaroo bi fannin ci xeet hmm. fa fannin topp xeet hmm. ndaw si nag daal di ma sori hmm. bàyyi ma may jooy jooy goo xam ne dana ma tiitloo di ma indil njàqar yu bokkul léegi mu xalaat lii tiit léegi mu xalaat lam ñàkk lu ne mu xalaat si ndaw si xëy na li mu bëgg si ndaw si dafa bëri moo tax lu ne mën na ko teg njàqare mu ngi jàq di di jàq rek façon jàq yu wute fala maa nazara ba mu xoolee lii la waa ji way mm-hmm. ba mu xoolee cheikh mag bi daa ma xabaru ci ram taaral mooy mm-hmm. lam bind rek mm-hmm. wa tasafaha mu yër ma zabarahu la bind na ko xaala wax na loo ñëw ko buuri ka yàlla ci yow min talan ci koj béer koj béer mooy doomu kéwal kama buuri ka comme niñ barkeelee fii laa wala ak laa dafay mm, min shijaratin مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية نيالي يعني لا يولي جنجو كم نين بركة لي غرب زيتون لا القرآن مون دف تكسينة غرب زيتون يالا بركة لك كون يالا يالا بركة لكم نين بركة لي غرب جين خمدني وأرين نشي نيالي يعني لا لبغو لا شرقية ولا غربية ثم هتفا توب موهو أقرب جغال يا قطرب يو غنورغي كما وخي وخي دوفلا نعم. دك بوم نيك نيو نيك اي wax nañ ne Sibawayh yi daf doon dafa mos a génn ci fajar hmm. gis ci buntam bi benn waaye bu ñëw Muhammad bun Mustanir hmm. mu ne ko innama anta xutrub xutrubu hmm. laylin yow daal gunóoru guddi nga waaw saa nekk ngay jug ba demee nit commencé ko waxee xutrub la jógee <clears throat> mu ne ko jegeel yow xutrub faxtara ba mu jegu mu ci moom fatan waxambaane yax kii dana nettali yax kii dana niroog dañ ma dujjeetin lëndëmi guddi wala biddiwu lëndëm biddiwu guddi aw timsaala dumyatin wala dessin nataal dégg nga timsaal mooy dessin bi dumya nag mooy nataal bi defar ba pare xam nga loolu dafay rafet fa xaala mu wax loo nekk urqum bindal الابيات بيتي الاخياف يبوك باي يبوك ياي تبوك باي بنات الاخياف مو يخم سين ياي بن لواي سين باي بوك كون اندي نين تومبوت اندي نين توم تانا دي اندي يو خاني بال بي نكو توم يينن باري توم وتجن نب نغا مويتو الخلاف ووتي فاخذ مجرى القلم بيكبا ورقم مبين اسمح دغلول امون بن توم fa basu samaahi yulli tabe hmm. zeynun taar la hmm. wala tuxibbul sooyloo amilan aji mbébét yoo xam ni te day yëfa wàcc na gan hmm. xoolal ba xasida bi jeex baat bi bu amee tomb baat bi dara duñ ci tomb duñ ci tomb benn xaraf baat bi su topp tomb yëpp beneen bi duñ tomb benn xaraf ba su topp dañuy tomb yëpp noonu la defee ba xasida bi jeex tabeel ndax tabe taar la dafay taaral nit bul sooyloo ku la yaakaar wàcc ci yow wala tujis bul daganal radda zi sualin delloo borom laaj ku laaj bul ko dàq na na xeetal na am a xafafa wala oyofal na fi suali ci laaj moo xam dafa la rek simple wala dafa ñëw di wax di neexal di yooyu yëpp mooyam loolu ko rek te tax wala tazum na bul njortu adduhóor a jamono tubqi muy desal maala daninin alal lu aji nay hmm. walaw taqa shafa dilee dégg nga ñagasal na dundam hmm. bu yaakaar ne jamono hmm. dana desal alal lu ku nay loo loo nay nay nay nay alal ji daal jamono dana ko yóbbu rek dile yow dundewoo sa alal dangaa dëddu àdduna ndax bañ sa alal ji jeexit la nekk sa compte banque doo si jël dara jamono dana ko sànq rek ndax ngay dee ba ko fi wala alal ji mujj dem bala rek nga am problème ñàkk waxlum nanga nga lewet fa jafnul kiraami mbat dégg mbatu bëtu añ way yox mhm. di dafay jëlale mhm. wa sadruum seen dënn naf nafu aji yaatu la mhm. fi ci may naf naf mooy suuf su yaatu dégg nga na lewet ndax ku tabe dafay jëlale ñaareel di jéggale li tabañ yi seen dënn dafa yaatu wala taxun bul war aada zi bi daadin dana la borom cofeel sabtin ku saqol wala tabxi bul sàkku maa la nga xam ni tazayafa foo na foo mooy la nga xam ne baaxut mu ne bul xor koo xam ne daf laa bëgg am ak yow kóllëre xolam dëgër lool du soppeeku waaye nag bul sàkku foo foo mooy loo xam ne amul benn njëriñ ñu ngi ñu ayibal bu ci nekk te war ci fooyi la bokk ay bëri la bokk hmm. xasida baa ngoogu baat yi dañ koo tomb yeneen yi tombuñ ko hmm. fa xaale wax loo ñu ne ko laa challat hmm. yàlla bu mu làggi yàlla bu mu wow maanaam ya daaka sa ñaari loxo wala kallat yàlla bu mu diig mu daaka sa paaka bu diig mooy paaka boo xam ni mënutu dagg dara amutul ñaw ka su ma naa daa topp mu woote yaa xacham chamu yow mu dëgër bopp mi mm-hmm. yaa itara man chami yow gëttëg man cham man sam mm-hmm. góor la wala boog jigéen la joo xam ni daf loon jaay parfum mm-hmm. ah, benn bi sax ay nit song ko jël parfum ba daal di ko parfum wee mu dem nag ci ay nitam moom man cham sàkku ci ñoom ñu dimbale ko mbokk mi daal di génn kuñ gis nga xañ parfum rek ñu rey la su ko defee nag ñu commencé di gaafal parfum boobu lépp loo xam ni gaaf da see juddoo dañuy li lii mooy intru mancham ndax parfum boo xam ne nii tax na mbokk yi génn ku xañ parfum rek ñu rey la yaakaar ne si parfum mancham gi la dëgg-dëgg loolu gaaf la nee nañ déedéet ay nitam dañ leen génn di xeexi mu laala leen parfum ñoom ñëpp bañ demee ñu rey leen ñoom ñëpp gars yi gaafal parfum boobu hmm. neneen déedéet dafa doon jaay parfum yi parfum yi niw i yi rek su ko defee ñu gaafal ko ndax parfum niw moom ku ne kenn bëgguñu laalal la ko hmm. lu mën a xew daal nee ko yow mi nga xam ne yaay parfum man cham bi dëgër bopp lool jugal hmm. fala baaw mu wuyu ko xulaamun xale ka durati xawaasin mel ni wurusu duru xuusaakoon kuy xuus ci aw zari xannaasin wala doomi njaaxal rëbbaakoon kuy rëbbu bu rëbbee doomi doomi njaaxal nagu njaaxal la xam nga nagu njaaxal dafa rafet wuru su dur yi dafa rafet daf ko bëggoon xale bu rafet daal moo daal di génn fa qaala moo loo ñëw uktub bindal arabiyaata bayti almataima almataima yay seex mooy jigéen ñi nga xam ni suñu amee doom rek par ñaar lañu jur suñuy mataay yi mhm. wala takun bul nekk meneen machayi mi ci borom gaaf yi mhm. andil bayt yi nga xam ne ni mhm. ay seex lañ bokk ci ñaame gaaf luy loolu mooy andil bayt yoo xam ni baat yi dañoo niroo waaye bokkuñ maanaam ñaari baat yu nekk rek dañuy niroo te duñ bokk maanaam loolu yombut فتناول مجن القلم بيب المثقف بدبن جبنت وكتب مبين ولم يتوقف تتخوت نزوين تارا زينب زينب قل زوين زينب نعم. بقد انت تخوى وقمنا يقود دنا دقل يا قد يقود جسنا نجوه نعم. وتلاه تبنك ويلاه تيمم تلاه أقويلاه جسنا نجوه نهد جناو يهود جوك دنا مبو alma bu xeli daal nax dun ak yahuddu gis nga ñu hmm. noonu la ko yeewam jeex liir yow mudde hmm. dëgg-dëgg borom téere bi adib la hmm. junduha soldaaram jiiduha mooy loosam nga doqam doqam yi daal ñu ngi rafetee mooy soldaaram ci lay gañee ñëpp dégg nga wa zarfun ak ak ñaw wa tarfun ak bët naangi suñ gaa ji gémmantu am bët boo xam ne toujours dafay tayal mu wàcceeku ndax loolu dafa moo gën kat bët bu rabe taangi suñ gaa ji arak dégg nga ku ko sopp bi xaddin ci ñaw ko koo xam ne ni yaxuddu dana dog léegi ñaa yëpp ko dog lay firi hmm. mu ne xelam mu ñëw ma hmm. ak bëtam bi nga xam ni dafa tayal hmm. di alag ku ko xool maanaam ku ko xool rek mu sopp loola mel ni bët bi dafa am ñëw ko goo xam ne dafay dog képp koo xam ni rek xool na ko xoolante naag moom rek dafa mel ni dog na sa xool day la ba doo tarati leen lu muy bëgg ko mu ne loolu mooy ay soldaaram xadruha darajaam xad zaha yëkkatiku na wala taaru na hmm. wa taaxat rëylu na hmm. wa baaxat te puugarewu na hmm. waxtadat te jàggati na waxtadat te xëy bi xaddin ci lex goo xam ne ya xudd dana dog yi yëpp mooy dana xotti xoolee rek mu ne darajaam lu taaru la foo fekk ma ngay puugarewu di réylu mm-hmm. di tooñ rek mm-hmm. ndax yéeg boppam mm-hmm. bu xëyee lexam ba mooy dagg xolu góor ñi faaraqat nii tàqalikoog naag man fa arraqat nii mu foog looma maanaam mu tax mënatuma nelaw wa chattat tam sori wa satat tam song su nam ma topp mu tasaare samay mbir wajdun cofeel wa jiddun ak góorgóorlu pour am ko mm-hmm. ba mu tàqali man tax na mënatumaa nelaw mm-hmm. ba mu soree ci la ma songu mm-hmm. maanaam sori gi ma sori tax na ay njàqare ak fitna dal sama kaw waaye li siwal sama mbir mooy bëgg gi ma ko bëgg ak góorgóorlu gi ma góorgóorlu pour moom tax na ñëpp dem ba xam sama mbir fa danat jege na fuddiyat yàlla lañ ko jot daf koy ñaan musiba bu ko nee dal na dal ñeneen waxanat namm na waxayet nuyoo na nuyu na kon mux daban kuñ merloo waaye di yéen kiy jëllale yawaddu dana sopp yawaddu danañ ko sopp mu ne gannaaw ñëw na jege ma nag ba ma jege daal maa koy ñaanal yàlla na ko yàlla jot mu sopp ma lool nuyu ma waaw mooy nuyu na fekk mer naa ndax tooñ na ma bëgg a dee hmm. waaye maa ngi jélale ñi mu maa feeñal sama mer hmm. ma bëgg ko mu bëgg ma hmm. <coughs> waa ji wala mu ne wa uhibbuha wa tuhibbuni wa yuhibbu naaqataha ba'iiri mu ne bëgg naa ndaw si moo ndaw si bëgg ma dem naa ba gërëmam gu jigéen gi sax dafa bëggaale sama gërëm gu góor gi xanaa bëgg foofu lay mer قصيدة يعني بيت في غفلة دي غفلة سوي عجيب فتفق مكماسة الشيخ مغمى يتأمل دي سرنت الماسطر ولم بن ويقلب مجازر بفيج مم نظره بتم فلما استحسن بمرفر لو خطه من لمبه wastasaha mu wér lu ak takkam mhm. li waa ji la gis na ne lu wér la xaala mhm. wax na loo ñëw ko laa challa yàlla bu mu làggi mhm. sa fukki baaraame mi wala tux bi sa yàlla buñ bon loo nasru ko sa xet gi buñ bon nasru nit ki nag xetam nag mooy li ñuy dégg ci moom ak li ñuy ci moom su ma ahaaba topp mu xoo bi fatan ci فتان كيف النار كون قلي يسفر دنا فين ان ازهار بستان ولس فلوري تول خلي بو فين رك دا فاي تارو من اي فلوري تول موفتا موفين مدالو خلي منهم فقال مهلو نيركو انس شدل البيت نيار بيت يا المترفين يرين دفل نياري تشات نياري ماندرغ سي نياري تشات almustabihi almustabihi tarifayni tarafayni mm-hmm. yaa ji niroo ñaari cet maanaam andil béyt yoo xam ne ni mm-hmm. baat yi nga commencé moom ngay mujje te duñ benn mm-hmm. allazina ñaari béyt yi nga xam ne askata noppiloo nañ kulla naafisin képp ku aji wax wa amina wóolu nañ an yu azzaza ñu dëgëral leen bi saalisin si ñetteel béyt yoo xam ne wóor na kenn mënu bi jéem ko da ngay jéem ñetteel bi fa xaala wax loo ñëw ko isma déggal laa waqira yàlla buñ tëloo sàmmu ko sa nopp wala husima yàlla buñ not jamu ko sa mboolo xale bi ba wax lii waan sada mu sadd beyti min xëy tarabusin ci lu dul sax xale bi daal di sadd beyti bi ta xaaru dara ولا تريسن تلو يخد نسيم ماندر قال سيمتن أب ماندر قال بو خامني تحسن دنا رفت آثارها أي آثارها أي جيختم واشكر نغا غرم لمن أعطى نيال كو جخه ولو سمسمة ديلا بيبم سمسمة لا خم <laughs> سمسمة سمسمة مم لو كوماسي موت ليك نعم نغا ديف جيف جو خامني ني بوين كاي نتري دا فاي رفت loolu mooy sim si tax sunu asaaruha mhm. mais ki la jox lu mu tuuti tuuti na nga ko gërëm mhm. wal makru wor mhm. wal makru wor mahma stataata saa yoo ne laa taati yi def bul ko dikkee li tax tan yi ngir nga fàggu asuuda la sang wal makru mah ak teraanga wal makru mah wal makru mah <laughs> dafa wax ne kenn mënu ko ñetteel waaye nit ñi mën nañ koo ñeenteel ba juróomeel ko hmm. parce que yow boo boo commencé woon euh, béyt koo xam ni xam naa loolu du nekk commencement waaye mën nga ne bal baaluhu hmm. bal bàyyil baaluhu xelam ma hmm. nga continuer jeexalee ko bal baaluhu jàqareem xam nga ñaar yooyu benn la yi demee ni boo si xalaatoon da nga ma indi xasida loo fi indi kenn mënu koo ñetteel. Hmm. kooku alquran rek la. Hmm. moom moom bu dee benn kenn mënu koo ñaareel bu ñaar kenn mënu koo ñetteel. Hmm. maanaam andi lu mel ne alquran rek moo mënu nekk waaye loolu loolu nit ñi nañ ko andi. <coughs> dégg فقال مولو نيرك اجت رفتل يا زغلول يو اجي اويف جي يا ابو الغلول يو برم غخغي غخ موي لم سينا مو ماي كو خامني نيت ني نكاي خول بر دون تاراتي دار دا فمن دا فاي تاك خيلي دا نعم فاي تاك خول ني كوي غيس ني كوي ني كوي خول ثم نادى توك مو اودي حلال يا ياسين يو ياسين مم. maa yushkiru la dana lëntaloo min zawaati siin ci borom siin yi hmm. fa naxada mu buur wala mit annata muñut hmm. waan shada mu sadd bi sawtin ci kàddu axan na gu nos gu neex maanaam hmm. da koy bëgg wax ne andil baat yi nga xam ne siin bu wow lañ koy bindee mu ne neq dawaati neq gu ñuy tuddee da euh, daa neq su dawaati neq su daa neq dawaati benn la waaw dafa ne neq su nga xam ne li muy firi mooy daa hmm. siin bu woola bàyyi na ko si xasida mi ba neq si hmm. warasuxul kaf fi hmm. ak fasaleeg tënk diggante tënk bi ak xasabu gi lii leen moo leen teqal moom mooy rusxu musbatatun luñ saxal la siinaahumaa seen siin in huma dem ñoom ñaar xuttaa bind nañ leen wa induri saa buñ leen jàngee ñaari baat yooyu la wa hakaza naka nii la siinu siin fii xasbin ci xasb gi firi aji tàndarma ji aji wow mhm. wa baasiqatin ak baasiqa gi firi garabu tàndarma gudd xasb mhm. moom tàndarma ji wow la baasiqa nag garab gi mhm. wa safu gi firi suufu doj ñu di ko wax mbartal wal baxsu ak baxsu gi firi ak wàññeeku waqsir ak waqsir gi firi notal raditu xasran borom durée andi na ko waxtabis ak jumul xabasan ak jumu jumu mooy jël niitu niitu safara si yëpp siin lañ koy bindee wa fii taqasastu ak ci déglu naa bi ci guddi gi mhm. alkalaama wax mhm. taqasasa siin bu woola mhm. wa fii musaytirin ak ci musaytirin musaytirin nag eh, mën naa nekk saat dégg nga waaye moom def na siin lañ koy bindee aji not kuñ xiir ci kaw mbir lasta alayhim bi musaytirin Mm-hmm. wa chamuusin ak fas wuy màmm mm-hmm. siin bu mujj ba mooy bu woo de mm-hmm. wa texis ak jàppal jarasan sonari jaras mooy yooyu ñuy dóor muy sonari jarasan siin boobu siin bu woo wa fii xari wa fii ak aji way al jaamit bu woo la wa bardin ak sedd xaarisin gi aji tat sedd bu tat kooku siin bu woo <clears throat> faqus jëlal asawaaba lay njub min ci man mhm. wa kun na nga nekk muqtabisan daa ji jumu mhm. leneen mi ñeel xam-xam mhm. maanaam na nga jël xam-xam jëriñu ci kon baat yi moo xeeb siin bu woo lañ koy bindee fa qaala moo loo ñeel ko ah, ahsanta rafetal nga yaa nu yow aji bëri yëngatu ji yaa san naajatal jey si yow poids arme ba soldaare maanaam yaay خينا يو يو أيوة. أفير خراب يبكي ولا إنك تك أنا تكابر ثم قال موسى تبل يا أن بسط يو جيندي وبين لير الأسادات سادي الملتبسة يا جلنت ما هم لير لير بارين خمني سات لين كي بندي فوسب متب وسد شبلين كم تبو دوما جيني مسارن بن مرلو متب كم دوما جيني بن مرلو Hmm. suma anshara musadd way men xëyreen saarin ci rudu fakastaru hmm. na yuktabu danañ bind bi saadi si saat kat hmm. xabastu comp naa daraahiman ay dërëm mooy jël naa ko sama cet baaraam bi anaa mili samay baaraam waasix na nga xerawlu istame boobu saat la li tas tame ngir nga déglu alxabara xibaar ba wa basaxtu ak tafli naa ab suqu danaa tafli maari bu mu la andi wa simaaxu ak bën bënu wa sanjatu ak poids poids yooyu ñuy peese moom la andoon foofu wal xastu ak dënn kastu mooy cat dënn ba bopp dënn ba kaw dënn ba daal boobu moom xastu asadru mooy dënn waxtas sa xeñtul al asara jeexit bi mooy toppal jeexit bi yooyu yëpp ixtas sa xastu sanja simaax dégg nga yooyu bu soit lañ koy bindee ba ba xastu ak buqi naa muqalatu nagu bët ya muy fuq naa bët ya wa haasi lii fursatun occasion la hmm. dégg nga yooyu kii la xat uridat loxloo nañ munu ci moo alfarisa mooy hmm. dënd bi bu tiitee loolu di yëngatu mooy alfarisa hmm. lil xawari ngir lott yii siin bu soit lañ koy bindee wa qasar tu tëj hindan hinda ay damas na ma xabas tu tëj waqat danaa jege na fisxu nasaara feetu nasaraan yi woo moom fisu boo ko xamut xëy dun feet la mun tasar ñuy xaar ci ñoom dégg nga wa xarastuhu dompat naa ko mooy ñoppati naa ko mooy xarastuhu wal xamru ak sàngara sa xaarisatun aji forox la ida xasan dem màtt na al lisaana fa kullu haza lii lépp mustatarun bind la hmm. yëpp bind ko siyee boo xoolee baat yi yëpp hmm. soit la dañ fa xaala moo loo ñeen ko raxeen ak sàmm lakk ñaan na la yaa bu ne yow sama doom hmm. yal na la yàlla sàmm daal fa nga ay nii sama bët su hadaf topp mu buurloo zaaju zaaju sattin borom ak jëmm zaqi bu mel ni jéegit gu ndaw picc la wa ak borom ak yëngatu ka saw zaqi mel ni jéegit hmm. bay sax mooy bu bi hmm. waa marawu mu digal ko bi an yàq fa mu taxaw hmm. bi misaari ca fuglukaay ba dégg nga wayasrudu mu toppalante maaye ji la dana dawala siini si siin wa ak saat mu ne ko ay taxawal ci fuglukaay mooy taxawal ci yoon bi maanaam jegeel rek hmm. nga indi ma béyt yi nga xam ne nii bu la neexee bindee ko siin gu wow bu la neexee bindee ko soit hmm. fanaxare mu buur yasxabu di diri buur hmm. day ñaari yérém bi maanaam seeta topp mu sadd mu séeram di junñi bee day ci ñaari loxo mi ñu xëcc yére yi di junñi ci ñaari loxo mi in siita bu la neexee bi siini ci siin faktub ma bindal ma ubaynu la may leeral in siita bu la neexee bi saadi bi saad yuktabu yuktatabu danañ ko bind mhm. bi saadaati si ay saat mhm. lii ma bëgg a leeral boo neexee bindee ko sin boo neexee bindee ko saat mhm. max sun nga wax sun nga siin siin wala soit max sun gi firi mét biir buy mét wa faq sun gi firi ak tocc nan bi bu génnee cuuj bi génn loolu mooy tocc wa mustaarun ak sàngara su sëcc forox mhm. dégg nga wa mu mallisun ak aji roccitiku mhm. loo xam ne dafa gër gër rek wadd téyegoog mooy mu mhm. mallis wa saalixun ak saalix mooy li ëpp li gën a kawe si juri at yi juri juri ati gàtt yi dégg nag atam bu njëkk ay jirun la wax boo amee ñaari at tabiyoon ñett sanniyun ñeent ribaawun juróom sadiisun juróom benn nañu ne léegi nag boo yeggee saarix da nga naan saarixu sana saarixu sana tey ni mu jëm kaw bu dee gàtt atam bu njëkk bi xamlun ñaareel bi jëdun ñetteel bi jazaun ñeenteel bi sanniyun juróomeel bi rabaun juróom-beneel bi sadisun juróom-ñaareel mooy saalix kon sadis ci gàtt mooy juróom-beneel ku dugg ci juróom-beneel at waaye ci nag mooy juróomeel waaye boo gee saalix naan saalixu sanatin saalixu sanatin moom jeex hmm. saalix moom amul at bu ko faree kaw hmm. saalix boobu nag mën nga bind siin wala soit hmm. wa siraatul xaq ak yoonu dëgg li nga ci miin mooy soit waaye siin mën naa nekk siraat wa saqab ak fiir ak jege saqab mooy fiir ak jege wa saamixaani ak ñaari ŋaam mooy ñaari wàllu gémmiñ wa saqalun ak jéegit xam nga saat nga jigéen a miin mën naa nekk siin wa sawiqu ak suusal mooy sunguf wa mislaaqun dégg nga ak aji fereje mooy ku ñaw kàddu wax ne bu waxee rek fereje la sa laqukum bi alsinatin xidaadin ci la jóge wa kul wa wa tufsihu dara al kutubu téere an kulli hada ci lii lépp mooy lii lépp ci téere yi la fa qaala mu wax loo ñëwee ko nag axsanta rafetal nga mm-hmm. yaa xa yow tungane gi tungane mooy ku gàtt mm-hmm. yaa ay na yow jëmmi matt mm-hmm. matt yaa ngi mel ni jëmmi matt waxi dof rek su naa daa topp moo ne yaa daxfalu yow doomu ñeey wa yaa aba zanfal ya abu zanfal abu zanfal ne ko ko tudd kay kon arab moom rek فلا مويكو فتن وخمباني أحسن بغن رفت من بيدة تنشاب تنين با في روضة نبنك ستول در نانو بانجو لغنك ستول در خلباك بغن رفت نينان برفت خلباك داك فقال مهلو نيوكو ما قد هجاي الأفعالين لن موي تك تك إجي فعلويا التي يخم آخرها سن مج عرفو انتلالي مو عرفو رك فعلي يخم سن مج دفرق ما يخم يلو تسانو نحوالون wala yaaroon hmm. comme daa nooy xamee ne waaw waaw moo doon hmm. jaraa nooy xamee ne yaaroon hmm. fa xaaral mu ne ko laa summa yàlla buñ taxloo sa daaka sa mënóor mënóor mooy sooy wax boo sëggee si teen booy wax da ngay gis ne sa kàddu gi daa day dellu si waat si Hmm. loolu nag mooy laa summa sadaaka mooy yàlla boo dee rek hmm. parce que doomu aadama fekk mu ngi wax kàddu mu dellu si waat rek mu ngi dund hmm. waaye bu demee ba loolu tax maanaam di kenn déggatul dellu ci kàddam mooy mooy déggatoo kàddam même bu mën a kon nga yore moom yàlla bu mu déggee indaaka say noonu mooy asama laaw andaaka yàlla yàlla texloo say noonu suma ansata topp mu sadd way wa hmm. mastarsal shalata sàkkuut ku ko jubbanti hmm. mu ne isal fi'lu yawman غم عنك هجاؤه فألحق به تاء الختاب ولا تقف إذا الفعل نم فعل غم لن تلن يوما بس هجاؤه أكفر عنك تياو فألحق لن يجي بيج مم تاء تاء كي وخ wala taqif wala bul taxaw katabtu mooy taawul xitaab hmm. daa boo ko bëggee xam ci saan li waaw la wala alif yokk ci taa googu hmm. taawu mutakalim nga ne ana ci saan li waaw la hmm. dégg nga ah, waaye boo si yokkee taa it doo ko mën a xam daf laa bëgg wax ne boo xoolee arab yi jël fi'lu boo xam mujj gi dafa raag ñu yokk ci taa boo fa gisee waaw gannaaw mu fi koy taarix xamal ne fenn boobu cosaan li waaw la bu arab bi defee loolu hmm. amaa bu dee yow la ñaari da ngay xool mastar ma hmm. wala mu daari bu amee waaw rek xamal ne cosaanu maadi bi waaw loolu <coughs> boo gisee xabla taa yi njëkk taa googu yaa an hmm. bu bind fenn boobu bi yaa in ci yàlla maanaam cosaan li yàlla way laa bu dul loolu foofu moom yuktabu dañ koy bind bir alif ci alif maanaam bu fekkee dangaa gis njëkk final ba mhm. njëkk taaga diyaa mhm. jaraa nga gis arab yi yokk ci taa muy jaraytu mhm. booy bind final bi dëgg la mujj gi alif la waaye bindal yaa buñ tombut bind moom ci cosaan rek bind mi rek moo lay xamal cosaan li lan yaa la woon dañ koy bind comme yaa mujj waaye nag ngay jàng jaraa mais da mm-hmm. bu dee cosaan li alif dañ koy bind comme alif bu jug ci kaw. Mm-hmm. bu dee cosaan li waaw la woon kon dañ koy bind alif ci kaw comme daa. Mm-hmm. parce que foofu arab yi waaw la ñu fa def daawut. moom la ma boo gisee njëkk taaga yaa. boo koy bind bindal alif googu muy yaa. way laa bu fekkee njëkk taaga waaw la. foofu ba kon mujj googu yokkutu dañ koy bind bi alif ci alif ku jug. moo tax fenn moom boo koy xool rek ci cosaan li yaa la woon wala waaw la Mm-hmm. ca bind buñ bindee yaa ca mujj ga mm-hmm. ci saan li yàlla buñ bindee waaw ca mujj ga ci saan li buñ bindee alif ca mujj ga ci saan li waaw la woon mm-hmm. wala taxsib wala taxsib bul njort al fi'lu sulaasi fi'lu sulaasi wala si ak li nga xam ne daaw ëpp na ko wala mahmuus ak fi'lu mahmuus yaxtalifu muy wutee fi zaalika ci loolu ne lo loo mun ati bi mun sulasi ak sulaasi sulasi ak mahmous moy yeeg bo am ci ñoo ci am mm-hmm. laaw mu xam nga li nga xamone tam leer nañ te lëntut moy le fexe mu bu uppe sulasi mm-hmm. bo si ta bo boo ta ya rek nga fay feñal mm-hmm. istala ci uluwu la jógee wala ana istaalaytu ngay wax yaa hmm. te gis nga alif nga fi bind foofu si hmm. istadaa daawtu la ana daawtu istadaaytu ngay wax hmm. kon fiil moom bu xefee ëpp sulaasi rek soo si yokkee taa ci yaa nga koy delloo lii mu wax nag xaw ma dañ ko si yokk xaw ma nu mu demee noonu <coughs> fa tari ba mu kontaan a cheikhu mag mi li ma addaaw ca la joxe na ko su ma awasoo topp mu musluloo ko manam mag mi kontan ci waa wax mu ne ko maa ngi lay musuloo ci yalla ci bët ya aji ñaan wa fa mu jot ko mu jot ko mu ne ko yalla ma yàlla damay sa jot suma xaal mu ne halu kaay ya qaqaw ya ji tat kaddu gi ya baqatal bi yow yow jombaleek pàkk ya ndaxa ya jombale ci pàkk yeb barab fa qabala mu fatan wa waxambaane axsana bu minaaril xiraas safandaay bernde fi ayni ibni sura ci bëtu doomi rañaan kuy rañaan day bëgg safandaay bernde waaye mag mi xale ba mu woow gis ko sax moo lay gën a rañaan gis safandaay bernde fa qaala moo loo ñëw ko is daa qottil bi tamyiizi zaa ci ràññale zaa min ad daad ci daat andil baat yi nga xam ne zaa waaye du daat li tas daa ngir nga xottee bii ci moom ak baalal addaa di resu noon ya faxtasa mu kontaan li xawli yi ci waxam ja waxtasa mu bég su ma am sada mu sadd bi sawtin ci kàddu goo xam ne aji sa wax ci kàddu gu kawe kawe kawe ana baat yi nga xam ne ni zaa lañ koy bindee aywa saayil yow may laaj an daadi ci daat wa zaa i ak zaa li kay laa tudilluhu ngir bu mu ko réeree al alfaazu baat ya kon al alfaazu noonu zaa lañ koy bindee dégg nga inna xifza zaati naka wëttu zaa yi yuxniika dana la koomluloo maanaam dana tax nga am doylu fasmaa na nga ko déglu استماع امرين كم دقلو استم له نيان لكو استيقاظ اجيو نكو دقلو كم دقلو كام خير هي بعد يا خمني ظالم كي بندي وزنجك موي ظمياء كي في اجي هوس ظمياء موي قليلة اللحم كنيو ياب ظمياء داني فريد كسون تون والمظالم اكتونيا wal islaamu ak lëndëmal masdar aslama la wa zalmu ak ndoxam bañ wal zuba ak ay kéw wa dére maa jum wal zuba ak ñawkaay jaase jamoo zubatun wal laxaazu ak gendeeku mooy wàllu bët moom mooy laxaazu wal iza ak unku wa zalimu ak bànjoolu yàgg bànjoolu yàgg nañ ko jàng rab bu gaaw la wa zabyu ak kéwal wa shayzamu ak aji gudd lu gudd la ne rek mën nañ ko tuddee shayzam wa zillu ak ker wa laza ak safara wa shuwaazu ak safara su amul saxar wa tavanni ak jëfi njort wa lafzu ak baat wa nazmu ak way wa taqrizu ak tagg waaye nag kuy dundu lañ koy def moo tax bu nit bindee téere la nga cee wax ci lu rafet taqris koy tuddee mhm. wal xaydu ak mbooyo mooy tàngoor gu tat wa zama ak mar wala maadu dégg nga ak mos mhm. mose si ceet làmbañ wala mar ñu mhm. ko tuddee mooy firi mar zim u nag mooy nekk si diggante ñaari naar yi <clears throat> wala ak ay cër wa naziru ak ndend hmm. mooy morom wa ziru ak aji namp nampal ku nampal te jurul la hmm. kooku mooy ziru ñu di ko tuddee yaay hmm. wal jaaxisu ak aji buqeeku bët wa naaziruna ak way xool yi wal ay qaazu ak yeewu wal ay qaazu ak yeete wala ay qaazu mooy way yeewu yi ñu am xel inqaadu nag mooy masdaru ay qada yéena ak yéete wa tashaddi ak faalewut buur tashaddi mooy boo rombee ci benn garab benn garab matt mu wow dagg daanu rek daanu sa kaw loolu mooy tashaddi maanaam li tax ñu tuddee ko faalewut buur buur ak baadoolo ku fa jaar moom mën naa wadd sa kaw mooy dogg ji yooyu wadd wa zilfu ak we ولا عظم أك يخ والذنب أك بير ولا يخو بير ما يخو إيل والظاهر أك جناو والشذا أك يخو قصبو ما يخو تانك والشذاذ أك جابوكاي جابوكاي لو منا دون منتو شذاذ والأظافير أك يوه والمظفر أك من جنلو كن جنلو والمحظور أقول ترى والمحظور أقول ترى والحافظون أقول يوتي والإحفاظ أك merlo ahfazahu mooy merlo na ko wal xadiraatu ak ngédd yi ngédd wal mazinnatu ak njortukaay wal zinnatu ak tuuma wal kaazimuuna ak way nëbbu mer wal muxta wal muxtaazu ak kuñ merloo wal wazifaatu ak dépassé wazifatu mooy li nga war génn bis bu nekk والوزير فاتو يدني في النوم تانكي والمواظب أجي تقوم بير أيوه. والكذ والكذة أكفر والانتظار أمنيلكو والإلذاذ أكتقو الذو بياز الجلال وين أن تقو بياز الجلال دي دي واحد درا إلذاذ ووظيف أكبر وين تانكبر وظالع أجي صوخ وعظيم أجي مج وظهير أجي دمبلي والفظ أجي ووقل والإغلاظ قيسل ونظيف أجي ست والظاف أندب والظلف دينغ أك فقو ما يكو آرو الظاهر أجي فين ثم الفظيع توب ندوخ منيخ ولا ثم الفظيع توب اجي نياو داي في نياو ريب ورواعظ اواريك دي وعكاز عكاز برب لا بو نيك ديغنت ماك اك تايف راب لي نفران داف مارسي وذعن اك لخص موي دم موي توكي ريك والمض اك gërënaatu jéeri hmm. mooy rumman gi sax ci jéeri ji hmm. wal hamzalu ak xetteer hmm. wal xaari ak ñaari way nemmi neb neb neb neb dem dikkaatuñ ñoom ko wal awsaazu ak njaxas ya muy axlaat ay nit jaxasoo rek wa ziraabu ziraani ak dégg nga tundi doj ñaw ya zérab jamoo zarib mooy doj wu yem rek zéraan jamoo zéraar mooy doj wu ñaw wasa was sadafu ak wancu mooy dund bu naqari albaahidu dégg nga ki aji lu aji jafe mbir mu aji jafe wal jaazariyu ak aji wanewulum amut mooy koo xam dafay wane loo xam ne nekkut ci moom wal jawaazu ak kàccoor hmm. kàccoor bu rëy bu mën a lekk man hmm. lay firi wal zarabina ak wexeñ hmm. wala boog weteñ rabu rabu xeñ wu naqari xet jamoo zaribaan bu génne bu eh, ngelawale kenn du mën a xeñ wala xanaazibu ak gunóor yu ndaw ya wala umzubu ak njéeréel yu góor ya su ma zayaanu topp yaasaminu jéeri gàncax la wala araadu ak fuux ya mooy fay ñëw kay fett bi di dugg ngay jëm wa shanaadi ak wàlli doj ya wa dal wa dal wa dalzu wa dalzu dégg nga ak jañu wa zabu ak yuuxu wa zabzaabu ak gàncax ak déedéet ak jàngoro zabzaab maa bii zabzaabun ay maa bii daawun amul jàngoro la zabzaabu ak jàngoro mm-hmm. wal umzuwaanu ak gàncax ak umzuwaan mm-hmm. wal jinaazu ak aji doxi mm-hmm. wala wal jinaazu ak aji siis ñaar yëpp da firi lu ko xam bu ñam ñëwee day mer bugg kenn lekk wa chanaziru ak ñu ñaaw jikko wa taazulu ak taqaloo njéeréel mooy njéeréel ni ñuy noonu bu ñuy bu ñuy sëy ak gàncax ak islam wal basru ak basru basru mooy mm, <coughs> loolu noonu mel ni kii yëpp ganaar di nekk ci kanamu jigéen dégg nga yaadu hmm? baadu gannaaw ga la wala inaadu ak tukkal tukkal mooy sàkkara su jóg baadi yëpp vaala hmm. ah yéen ñoom xaaji yii la si hmm. wan na waajiri yu mooy yu néew faxfas xaa na nga ko wattu li tax foofu pour mu xeñtu asaara ka say jeexit alxufaasu wattukat ya mooy mokkalkat ya waq dina nga atte fii ma sarafta ci li nga sarfu minaa ci moom kama taqdi comme nu ngi koy attee fi asli ci cosaanam ka xayzin comme mbooyo mooy tàngoor ak xaazu wa xaazu gi fii dugg nañ ci tàngoor maanaam baat yi yëpp da ngay dem fekk mu soppeeku waaye bu soppeekoo yi zaale itam fa qaala moo loo ne ko a cheikh mag ma axsanta rafetal nga laa fudda <coughs> yàlla buñ dog fuuka sa gémmiñ mm-hmm. wala burra yàlla buñ baax loo man yëj fuuk ku lay beccingal mm-hmm. yàlla bu sa bañi damm ku lay beccingal yàlla bu mu am ndam mm-hmm. walaay maa gën ci yàlla innaka naka yow maa siba ànd ak ndaw ga alxadd gi nëtëx maanaam ndaw dëgg nga waaye la axfaz la axfazu yaa dàq mokkal minal ardi si suuf bu aj moom yaa gën a mën a dajale mi yomee ardi ci bisab pang ma bisab gaaral ba bis bi yàlla di dajale ñëpp pour gaaral leen seen jëf maanaam andil leen seen jëf bis boobu dara daa ko dajale waaye dafa bëgg wax ku mën a mokkal nga rek wala xat ko rotal naa la wa rufqatuka ak say wa rufqataka ak say àndoor zulaal yi sama ndoxam ndox mu sell zulaal mooy maawu saafin wa saqaftukum jubbanti naa leen tasqifan awaal yi comme jubbanti xeej yi guddi ya fas kuruun yi dee ma fàttaliku askurkum ma fàttaliku leen mhm. washkuru lii na ngeen ma gërëm wala takfuruni bu leen weddi samay njëkk xaala mhm. woon alxaaris ibnu xamaam ne fa ajibtu ma yéemu mhm. li ma ab daa ngir la feeñal na ko min baraatin ci mat maajuunatin buñ jaxaseeg bi raqaatin ci dof wa azhara feeñal na ko min xadaaqatin ci ñaw ñaw mooy xel mu mu mat mamsuujatin buñ jaxaseeg bi xamaaqatin ci dof ñaw gu ànd ak dof xam nga waxi daf a mu doon wax si biir mhm. wala mu yesal dañu basari sama bët mhm. yu saxidu di yéeg fii ci mhm. wayu sawi bu muy wàcc pour xam kan la wayu naqiru muy seggaanu ci moom wayu naqi bu muy gëstu ñaari bari romboon nañ ko ba kuntu nekkoon naa yaa ngi seetlu bañ ko romboon kama yanzur comme kuy xool fii zalma ci lëndëm aw yasri wala muy rañaan fii baax ma ci àll bu àll payngaar mooy àll boo xam benn mandarga falamastara sa ba mu yéexloo tana bu yi sama yeewu wastabaana mu leer taddalu yi sama gëlëm baabu seen xamee ne man gëlëm naa xaw ma ko am laqa ci la xulli ilay yëm ci man wa taba sama muñ wa xaala mu ne lam yëpp ay waay man ita wasamu kuy xàmme fa buxtu ma xelu li fax waa ci dëgg-dëgg waxam ja dégg nga jëm ci dëgg-dëgg waxam ja fax waa mooy wax ji wajatu ma fekk aba zeyd muy aba zeyd xen dabtisaam fa xastuma commencé alumu di ko yedd hmm. ala tadayuri buqaati nawka hmm. ci dëkkee pàkki way dof ya lu tax mu ñëw ba ci dof yi mu dëkk ci hmm. wa taxayuri xirfatin xamqa ak tànn métier dof ya dégg nga ah, jàngal nag du fa ka anna wajuhu daf mel ni kanamam ga asifa soppeeku na wala soppeeku ramaadan ci dóom maanaam kanam gi daal dafa mel nañ koo sotti dóom mu xonq cor wala boobu mu weex tal maanaam mu am naqar daal aw shriba wala jaxasee nañ ko sawaadan ci ñuul dafa mel nañ koo jaxasee ak lu ñuul maanaam dafa mujj ñëkk daal ilaa andoona may moom anshada sadd na way wa maa tamaada waaye continué wut melam ga ne taxayartu tànn naa ximsa ximsa wa haadi sinaa ak bi la métier li urzaqa ngir ñu wërsëgal ma xusubata ahli raqa comme cëri ñooñ dofe fa maa yastafi ndax du tànn الدهر جمعنا غير رقيع لما يدف من جمعنا دفير لا يتاند ولا يوزن دكلو المال على إلا بقاء ولما يجي باكي دفير باكي دفير رفعنا يجيس على الجب ولا ديرت لأقل بيدنيا المبكم برم قل من دهريش جمعنا سوى مال مال عير لما يلنيها اللمبام ربيت نبنتك بقاء يجي من برم قل دال اللمبام ينتك زبان برم حمر لنيهم يعني يعني دولان جوسي أدنى لمري ثم قال waa ji waxoon na ne buru woon dof yi ko doon àddina ràpp hmm. ndax dof yi ñooy dundal àddina bi hmm. borom xel yi taluñ sax àddina hmm. su ma xaala moom amaa inna taalima waaye jàng jàngale nag moom ashrafu sinaatin mooy mécc bi gën a tedd si mécc waar boobu bidaatin mooy marchandise bi gën a am bénéfice waan jaw shafaatin mooy ramm gi gën a gaaw Cheba nag mooy dox diggante nit ak nit. Mm-hmm. wala diggante yàlla ak jàmm bi. Mm-hmm. xëy na ñooy jàngale ci gën a kaw. bu mm-hmm. fa bu afdalu baraatin moo gën ci ak mat. wa daal. zu imratin borom ak pal la. mutaatin guñ topp dafa mel ni ku yore nguur. waxay batin borom wegeel la mushaatin ku siiw. nit ñi dañ koy wekk. wala ayatin borom ak sàmm la. mitwaatin mm, dafay sàmm maanaam ñi muy dañ koy topp. maanaam borom njaboot gu koy topp daal la bëgg wax mm-hmm. yi te saytaru dafay songe te saytura amirin comme songe buur mm-hmm. way ratibu muy toppalante mbir yi mm-hmm. tartiba wasirin comme toppalante ak ministre ni ministre di joxe ordre nañ def li nañ def li moom i noonu lay def waaye tax ak mu day atteewu bi xukkumi taxakkuma qadirin comme atteewu ajaam kattan waaye te shabu muy niru niru بزوم ملك انت بور من غور كبير دماغ الا انه لو ما من يخرف دا فاي ناخ شي امد انت دير ياسير بنيو بلا غير خلم من نادم وي تسم داي ملو بهم كن تي دوف شهير غسيو مانام دوم اكسبيريانس دال وي تقلبو دا فاي جالر بي كو باقل انت خل صغير بنداو بو خوري كوم خرم خري دال لا يوري ولا ينبي كو دور خبار نك مسلو خبيركم كو دنج كومبا يالا نك موي خبير بي دغ واي بوغ من مي خمبير مي نات كو لو مانا واخ لولاي دغ fa hmm. xultu mawloo ñëw ko tallaayi maa ngi gën ci yàlla hmm. innaka nag yow lépp nul ayaami hmm. yaay doomi fan yi maanaam yow yaa xam fan yi dëgg-dëgg wa alamul alaami yaay drapeau drapeau yi maanaam yaay kenn ci borom xam-xam yi wa saaxiru yaay njabarkat ba allahi bu ko aji fooxe bil afaami ci dégg-dégg yi yaay koo xam ne sa wax dafay mel ni njabar da ngay fooy xelu nit ñi rek afaam mooy xel yi rek almuzallalu koñ tàggataloo ñel ko subulul kalaam yoonu wax yi dafa mel ni yoonu wax yi dana yàlla tàggatal su ma lam azal dañu ma moo takki fa ndaa ji sax binaa di yi ca péncam ma wa moo tari fa ndaa ji tànq min sayli waa di yi ci yoon lekk xuram wa maanaam xam-xamam yi rek ilaan xaabat ba mu sox al ayaamu fan yi al xuru yi aji weex maanaam ba fan yu neex yi daal dem daal Eh, wa naabat mu wàcc mm-hmm. al ahdaasu musiba ya mm-hmm. al xubru yi aji tat mm-hmm. mooy am pënd mooy tat rek fa faaraxtu ma tàqalikooku moom wala ay ni ñeen sama bët al xubru ronkañ ya ma tàqalikooku moom fekk sama bët yaa ngi jooy ay ronkañ dégg nga